assemblée nationale s'est transformée en arène nationale par les députés maa la wax li xeexoo beeg dóorante beeg saagante bi mel ni tulleeg mar waa li kañ lay jeex boo ko xamee daa wax ma Massata Samb a administré une gifle retentissante à la députée de Benno Bokk Yaakaar nu mu tudd Ami Ndiaye borom ñii bi ami nga ni ma maa tay ami nga ni maa tay ci maa tayam gii tax mu jur coow lu rëy Massata Ndiaye a administré une gifle sant à la députée de Benno Bokk Yaakaar ana député bi Ami Ndiaye Ami Ndiaye borom ñii bi Ami nga ni ma maa tey Ami déet maa tey ami ku la bàyyi maa tay ci maa tayam gi tax coow lu rëy am ca assemblée national waaw waaw coow lu rëy sax ay kàddu yu teggi néew ami daal jàpp na maa tay te du ko bàyyi <laughs> assemblée national daal comme sabar bu tas lu neex waay wax lu neex waay def waa baax na lii nañ ci bañ a wax bu buñ ci waxul <laughs> baax na xaaral ma noppi sax bi nga coow nag jur pëccëxoo bu rëy sax mel ni mbappat jigéenu APR yi ña nga nekk ca bee boor nee nañu dóorante beeg xastante beeg saagante bi day jeex ca assemblée nationale ndax Njaay ñii bii Masata Samb waru ko woon dóor benn yoon waaw waru ko woon dóor ñu nekk di wax ca loolu te noppeeguñu jigéenu yeewi askan wi fële ca bee di xam nga ni bi nga coow waa APR dañ cee nar a sukkandiku di ko politique dara waralul coow li nag lu dul politique déet waay politique nga ni ma politique ay waay ciy coowal politique bi li comme guerre ndaje bu neexee sax day tas yu soo ko wax de du samay wax kon nag Sall ngaari lam tooro faj na meeru sëriñ daara yi keroog ca jam ñaajo ndax Macky nee na dina moderniser daara yi Macky nee na école coranique yi dinañu gën a bari waaye loolu neexul de ñenn ci askan wi nee nañu bi nga ay dóor rekk a ay dóor kese déet waay pourtant Macky def na lu baax de ku la ko wax tëjal sa gémmañ ah bon xaaral ma noppi sax bëgg ñu maa Pape Alé ndax réew mi fu mu toll <laughs> dëgg neexul daal wóorul wóorul de juste un dimanche pour écrire son histoire mondiale Sénégal contre Angleterre ndaw Aliou Cissé yi dey gannaaw ndam lu rëy gi ñu amoon ci digganteeg ci seen match contre Équateur ña ngay xam nga ni kat coupe du monde bii Sénégal la jël ay waay amin waay ay waay yàlla na leen yàlla dégg Sénégal rek Sénégal dong Sénégal kese waaw lu war a mun a a mun a nekk la sax ndax Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye Bouraye Dia Kalidou Koulibaly Abdou Diallo moo ana parté siis moo parté foo féetee bi nga équipe daaw mën nañu gañe ku nekk mën nañu jël lu nekk ñu def daal lu dul di leen di ñaanal te di leen bàyyi ak suñu borom ay yàlla picc coupe du monde lañ la sox coupe du monde rek lañ la ñaan soxlawuñu leneen lu dul coupe du monde waaw kon boog mbokk yi maa ngay tàggatoo di leen jox di daje ba beneen sur la TMS TV